bés bi gën a yéeme gën ma yee si sama dund maa ngi fàttaliku bésum jeudi la woon mais si mercredi bi dama nekkoon di seetaan ay vidéo si YouTube ay vidéo yuy wax si nit yu dund seen ruu génn seen yaram daf ma doon tiital mais dama ko doon seetaan dama ko doon seetaan parce que daf ma intéressé woon quoi mais daf ma doon tiital tellement que dama doon toog di laajte mais mais est ce que est ce que lii lii la est ce que lii mën na ne mënuma ko woon comprendre parce que musuma dund lu mel noonu loolu moo waral ma jékki-jékki commencé di ñaan maa ngi fàttaliku génn si sama appartement di jaabante di ñaan naan yàlla soo mee ma dund sama ruu génn sama yaram waat naa ne dinaa ko jottali jaam yi. dinaa leen wax li ma gis um, wax dëgg yàlla xalaatuma woon sax ne yàlla di dina tontu sama ñaan dama doon ñaan rek ni ci ñaan mais xalaatuma awma si woon sax yaakaar après guddi googu le lendemain jeudi 2 octobre ma tëdd di nelaw gént mu mel ne sama ku gé dafa génn sama yaram ni ci li may ci biir gént bi quoi ma commencé di gis jaww ji um, ay leer yuy tàq weex tàll ni ma la ko mën a expliquer mooy dafa mel ni dama doon génn fii di dugg fee ngay dégg ma jékki-jékki rek tàbbi si benn asamaan bu bleu amul benn nuage am mel ni lépp bleu amul garab amul ñax amul ndox amul amul dara over there lépp jëpp bleu jaww jooju law na ay millions ay millions de kilomètres waaye gisuma fa dara dara nëbbuwu fa lépp feeñ lépp nekk sa kanamu bët nga koy gis and uh, ba ma xoolee sama yaram dafa meloon ne ab leer bu transparent leer bu mel ne ru ru ru roue ànd ak leer mais dangay gis lépp lu nekk si biir ba ma xoolee uh, sama kanam gis ay junni junni yu mel ne man ak ay junni junni yu nekk sama ginnaaw mais xamoon naa ne lii ay roue la ba ma xoolee sama digg dënn dafa amoon ay ay doom doom yu ndaw yu mel ne doomu orange boo ko ubbee mais xaw ma lu mu doon tekki instant boobu rek laa réaliser ne man rek maa mënoon bouger xool observer tiit sama cër yëpp doon dox instant yooyu ma commencé di xool sama sama alentour yi di xool li ma wër melul woon ne gént dama foogoon ne lii dëgg la dama foogoon ne lii mi ngi am dëggantaan ba ma xoolee sama kanam ma gis ngan ngandi maami takkandeer si kanamu mbooloo mi ay junni junni ruu yu nekk sama kanam te seen kanam am benn takkandeer takkandeer bu rëy sax mais takkandeer bi amul woon euh, ràññee maanaam dafa meloon ne saxaar ba ma mais gis naa ne daal li takkandeeru lu nekk ci kanam la euh, instant boobu sama kumpa rëy na rëy boo xam ne mais dama jékki-jékki rekk dégg dégg benn baat jugeel sama kanama te lu mel ni bunt bunt buntu xaw ma nu ma xaw ma lu mu doon ubbeeku si benn côté yàlla xaw ma noo ko mën a woowee mais li ma leer ba leer mooy moo doon juge jaam yi si côté wam am bunt bu fa ubbeeku nga gis ay xeeru safara normalement booy taal briquet da ngay da ngay taal gis safara mais au lieu de safara sibir bir buntu bob li ngay gis moy xeer yu wër buntu xeer yu xonku cior te képp ku yalla ne jugel sama kanam da do naaw dugg ci buntu bob daanu ci ci ci ci bir safara bi tangay bi doon genn fofu dang ko doon yek si sa yaram si côté bi ñepp ñi taxawon koyek, daron ah, rang dañ da doon laqé like ou tang benn tang bo ne ñëpp doon yàqamti buntu bi tëjuwaat non la tangé won bunt bi wat ni mu len don yobbo safara da don gaaw gaaw bo xam ne yoxu da don retard da ngay dégg sama kanam bunt bi wat ngay doog a dégg bi affaire bi tiital ma da ngay jékki-jékki dara xëcc la nga avancer si rang bi ma commencé di xalaat comprendre ma woon ma commencé mais woy sama ndey mën naa am lii bésum penc la ay laaj yu bëri nekkoon sama bopp lépp lu ma doon dégg mooy jugeel sama kanam jugeel sama kanam jugeel sama kanam mbindeef yooyu yëpp la yàlla doon dugal safara te li ma doon gën a tiital mooy ñi ñi doon àtte danga doon dégg bu yàlla di wax ak ñoom da nga doon dégg lépp lu leen yàlla doon àtte soo su kenn demee safara pour loo xam ne yow sa bopp da nga ko doon def di nga xam fu ngay mujjee ma gis ay nit di dem maa ngi yëg safara bi nii di ma lakk di lakk ñëpp ñu nekk si biti te kenn àtteegu leen maa ngi taxaw di dégg nit di wax ak yàlla maa ngi fàttaliku benn jigéen nasaraan yàlla di wax ak maam mu ko jugé wu ma la pour li nga dugal Facebook li ma lay aatee mooy ñi ko gis niñ ko déggee trois cent mille nit nga réeral ndax benn post bi nga dugal ci biir Facebook yàlla ne ko ñoo ñëpp seen baakaar ci yow lay këpp da jékki-jékki rek dégg jugal sama kanam mënuma la expliquer baatu yàlla ni mu bëree doole dafa mel ne ba mu waxee jugal sama kanam lépp a yëngu mu mel ne dañu sànni ndaw si ak doole bunt bi ubbeeku nga gis ku naaw bunt bi tëjuwaat yooxu yooxu bi da doon yéex ba def ma doon tiital tëddee jabaru jàmbur njaaloo ay ak yeneen bàkkaar yoo xam ne yëpp maa ngi koy dégg ñi nekkoon sama kanam ñi ngi tiit bay lox parce que ñu si bëri jot def nañu même bàkkaar yi dund nañu loolu te mosuñu tuub ay junni junni nit yu ñu yóbbu biir safara dañ doon naaw naaw yu gaaw yoo xam ne mosuma gis lu gaawee noonu man daal dama jékki-jékki rek gis sam bopp ci kanamu ran bi mu wooma ma commencé di wax ak man defal ci sa xel ne sa dund day day jàpp ci sa loxo lépp loo musoon def say jëf dañ lay seedeel doo mën fen parce que say cër dañuy seede dëgg la yaa defoon loolu yaa defoon lii te saa su yàlla di wax ak yow dangay mel ni lu gis ngan di maami tele dafay mel ne lu lu yàlla wax day nekk ci saa si mu commencé di wax ak man di ma wax lépp lu ma mënoon def defin bu gën ma ne ko euh, ok yàlla wax nga dëgg la euh, euh, mënoon naa def defin bu gën def naa li ma mën xam naa ne mënoon naa def lu gën mu mu commencé di wax leneen indi benn turu jigéen mu laaj ma lu tax baaluloo ko mu jaar si turu jigéen bi duma ma du ma wax turu jigéen bi mais dafa jaar ci turu jigéen bi ma xam exactement ki muy wax mu laaj ma lu tax baaluloo ko mais yàlla baal naa ko pour pourtant baal naa ko euh, bu dee baal nga ko lu tax booy wax ak moom nga ci téléphone bi ngay indiwaat ñaawteef yi mu la defoon saa su ne ma ne ko pour pourtant yàlla baal naa ko de mu ne bu dee baal nga ko lu tax xooxu doom yooyu nekk sa digg dënn ma xool da ma xool ne woy sama ndey kon doom yi lii la ñuy tekki xooxu doom yi mooy ñaaw mooy firndeel ñaaw tey fii ma daan def ñi nga xam ne baalu ma leen woon mu continuer di wax ak man mu xool ma si bët ne ma parce que baalu loo ko sa jenn sa baakaar yi duma la ko baal ma ne o oh my god woy sama ndey mu continuer di ma wax ak yeneen affaire te ba léegi nii waxaguma leen lu baax lu ma def maa ngi tiit peeru tiit boo xam ne sama xel mi ngi xalaat tàngaay safara bi ma nar a yëg bu bu ubbee bunt bi ma mësuma tiitee nii baay maa ngi tiit ba mënuma sax expliquer quoi que ce soit ndax tiit kenn mënula expliquer li ngay yëg boo jàkkaarloo ak yàlla kenn mënula expliquer tiitaange bi ngay yëg boo jàkkaarloo ki la bind amul dara lu ko nëbbu sa xalaat yi gën a xóot day feeñ ci kanamam say yëg-yëg say say xalaat lépp li nga doon nëbb day feeñ ci kanamam dama dama dem dama dem ba commencé ruus ba bëgg bëggatuma saa déggati ay baakaar yi ma daan def pour pour dama ragaloon ne moom àtte na ma ba pare dama tiit tourner bopp mu continuer di ma wax jëf yu bon yi ma daan def ak yi ma xam ne ni ma ko defee mënoon na ko gën a gën a rafet pour man instant boobu di daal man safara laa jëm gaay amatuma woon benn yaakaar instant boobu sama bopp ngi tourné bàyyi ma ñàkk yaakaar di xalaat naan mais bëggatuma dégg bàkkaar yi quoi wax dëgg yàlla instant yi nii maa ngi jéem a imaginer safara naka la mel ak tàngaay bi su ma xasee ba dugg biir safara du ma mënati génnaat ngir yàlla yàlla bu ma dugal biir safara maa ngi lay saraxu bu ma dugal biir safara maa ngi maa ngi saraxu instant yooyu maa ngi tiit tiit boo xam ne musuma ko tiit ba ma juddoo ba léegi instant boobu ma tourné sam bopp xam naa ne bëggatuma sax déggati li muy wax parce que xam naa ne gars yi pare naa si daf may dugal safara sam bopp ngi turne mais dama jékki-jékki rek am benn yëg-yëg bu jóge ci sama ruu maa ngi tourné sam bopp ngaayen mu mel ne ralentir samay rangooñ a ngi naaw may xool yàlla di xool lan mooy doon atem lan la may lan mooy doon sama àtte mu xool ma ne ma duma la gërëm lu tuuti moo la tere dugg safara jege sil instant boobu dama jaaxle baa ngi si côté yàlla am benn bunt bu fay ubbeeku ndànk-ndànk ay leer couleuru leer yi kenn mënula ko expliquer ay couleur yu ma mësul gis benn taar taar boo xam ne taar rafetaay bi péex mi lu bunt bi di gën di ubbeeku couleur yi di gën di jolli buntu aljana di ubbeeku ndànk may dox jëm aljana ba ma dugalee sama loxo ci bunt bi sama sama loxo gën a ngande sama tànk dugg gën ngande dafa mel ne dafa mel ne dama mat mat yaram bu mat dangay gis nii sama jëmm ni mu gënee ngande si beneen côté bi da ngay gis nii sama ruu ni mu doon soppeeku di doon jëmm ju mat sama yaram bi yëpp presque duggoon na ba mu des sama tànk càmmoñ ba mu desee lu dul dugal sama tànk càmmoñ ci laa yeew gént bi dafa ma tiital peeru tiital boo xam ne dama dugg ci suufu table bi nekk suñu saal ay waxtu ay waxtu ragal a bouger ragal def quoi que ce soit ndax dama rag ma foogoon ne lu ma mënti def mën nañ ko yokk ci sama àtte melul woon ne gént mën naa la wax li ma doon yëg li ma doon gis li li lépp dafa dëggu woon tellement que instant boobu maa ngi laaj yàlla ne ko mais yàlla yow li ma li ma wan nii lan nga si jublu mu ne parce que dama bëgg nga avertir sama jaam yi doomu aadama yi wala wax leen li nga gis moom mooy li nar a ami ma doo xam ne li ma ñaanoon yàlla waat bi ma waatoon yàlla nangu na ko léegi nag mi ngi may xool ndax man li ma waatoon dinaa ko def walla déet moo tax ma toog fii di wax ak yéen dee leen baale dee leen jéggale mënuma la konteel ñaata nit la ñàkk baale yi nga xam ne ñàkk baale mi ngi leen jural ñëg ak iñaan boo xam ne moo leen poussé ñuy def ay jëf yoo xam ne ñoo leen yóbbu safara tere leen dugg aljana dama tiit ba ma gisee nit yu bare dugg safara dafa meloon ne man maa njëkk jot yërmande yàlla ay junni junni nit ay junni junni nit ñoo nekkoon sama kanam affaire bu titre la lu titre la so tey maa ngi lay encouragé jéemal def lu baax sa digganteeg sa moroom sa digganteeg sa boroom li tax ngay attaqué doomu aadama yi di yàq seeni der di wax ci ñoom seen ginnaaw jéemal def lu baax because safara jaru ko yàlla tiital na ma beeru tiital boo xam ne ci gént bi mais xam naa ne yërmande la si jublu tey sama mbokk doomu aadama maa ngi lay digal nga tànn lu baax